sobre et vertueuse et Eva sobre vertueuse boobu pour man jàpp naa ne il faudra peut ñu dal di ko wane ci par rapport ak yenn ci ay mbir yoo xam ne ñu ngi koy wax am na wala amul j'en pas beaucoup trop justice moo ko war a leeral mais peut-être par rapport ak cas bi est que justice dina ci war a mën a sotti non wala déet je pense pas mais li ci am daal mooy mbir la boo xam ne on le suivra de très près et que y a beaucoup de scandales au ci am lan moo ci nekk dëgg ak lu ci nekkul dëgg hmm. Euh, je pense que ni bientôt dinañu reprendre li nga xamante ni moo di audience bi si c'est pas encore repris ndaxte dañoo defoon benn pause de 30 minutes rek euh, ngir mën a euh, reprendre at li nga xamante ni moom moo di audience bi di leen fàttali rek comme ni ngeen ko gisee ci image yooyu du këkk génn am na ci biir tribunal bu Ndakaaru ñi nga xamante ni ñu ñoo bëgg a teewee boobee procès sax ñu ngi leen di bàyyi ñu dugg waaye naka ñoo ko teg. ci ay vérification yoo xamante ni daanaka di fi yàgg lool comme ni nga ko gisee nii nag dinañ la vérifier xoolaat say pièces d'identité xoolaat la bu baax a baax laata nga euh, dugg dispositif euh, judiciaire bi tamit nag gis nañ ni ni nga xamante noonu la taxawee li nga xamante ni moom moo wër euh, tribunal bu Ndakaaru yëpp nag dafa mel ni am na ñu fa teew ci ay takk der ngir mën a rek mooy tëndiku lépp loo xamante ni day mel ni genre manifestation wala lenn loo xamante ni rek ñenn ñi dañuy ànd ak Ousmane Sonko Euh, dañ doon euh, faral di ko def looloo waral daal tey jii ngir nga daal di am accès ci boobu euh, tribunal sax dina nekk lu jafe loolu tàmbali ko ca diwaanu Rebeuss ba yegsi ci fi nga xamante ni moom moo di tribunal bi actuellement nii ñuy waxee ak yéen nag dafa mel am na yenn xibaar yoo xamante ni ruusandi ndax ñu bàyyi Abdou Khadre mu daal di cay jàll. waaw Amina am na yenn information yoo xam ni rek daal dinay am foofe nga xam ni moo di ca tribunal bu Dakar maître Bamba Cissé bi nga xam ni dafa bokk ci pôle avocat Ousmane Sonko moom itam daal dinay euh, rek yàkk lu mel ni que tamit ki nga xam ni euh, moo di euh, agent judiciaire de l'État di Yoro Moussa Yoro Moussa Diallo bi nga xam ni rek moom metre Bamba Cissé dafa jàpp ni dafa daal di yëkkati ay kàddu yoo xam ni waxu ko mu daal di koy dugal ci benn document boo xam ni rek daf ko daal di jébbal ki xam ni moo di juge bi nga xam ni mooy àtte tey Sonko ak agent judiciaire de l'État yi moom metre Bamba Cissé nag daal dinay tënk ay kaddu ci ay tubaab laata ñu koy faram ci ay wolof Maître Bamba Cissé dafa daal di xam ne rek ni je doute de l'honnêteté de l'agence judiciaire de l'État qui a osé transcrire dans son document des propos qui ne sont pas les miens et les faire passer pour les miens cet homme est dangereux et prêt à tout pour éliminer un homme politique ba tey Maître Bamba Cissé daal di ne xam ne rek nii euh, dana dina am ay jiixi jaaxa wala xel ñaar ci kàddu yi nga xam ne rek euh, agence judiciaire de l'État daal dina ko yëkkati mu di euh, Yoro Moussa Diallo ndax dafa daal di yëkkati ay kàddu yoo xam ne daf ko daal di daf ko daal di xaatim ci ab boo xam ne ko daal di jébbal juge bi te doki te euh, euh, kaddu ya nga xam yëkkati na ko ci document bi moom maître Bamba Cissé nee na loolee ay kaddoom te daf ko daal di jël rek daal ni moom maître Bamba Cissé moo ko wax nee na loolu rek mu daal di jàpp daal ni euh, Yoro Moussa Diallo nekk na nit koo xam ne jërut wóolu te nit la koo xam ni il n'est pas honnête te dina def lépp lu man ngir daal di éliminer ki nga xam ni moo di un homme politique bu ñu jàppee ne un homme politique nag mooy client bi nga xam ni moo di bu maître Bamba ba tey maître Bamba Cissé di wéyal rek ni l'État du Sénégal est machine dilatoire qui défie la loi et Euh, que vous êtes monsieur le euh, président dafa daal di xam ne état du Sénégal dafa nekk koo xam ne dafay wéy di jaay doole dafay wéy di def ab errance boo xam ne daf ko daal di amal ci dossier bi nga xam ne moo di dossier bu Ousmane Sonko maître Bamba Cissé aussi daal dina xam ne rek ni état du Sénégal dafay daal di défier ñi nga xam ne mooy ses garants bu ñu waxee garant nag mooy ñi nga xam ne ñooy magistrat yi magistrat yi nga xam ne ñooy doxal yoon ñoom ñooy àtte dossier boo xam ne daal dinañ ko fa indi foofee euh, ca tribunal bu Ndakaaru wala sax fépp foo xam ne ab sénégalais am na fa amal am na fa jafe-jafe ak yoon nee na état du Sénégal dafay wëri dafay défier ñi nga xam ne ñoo di ses garants muy le juges ak ñi nga xam ne rek ñoo bokk ci li nga xam ne mooy yëngal yoon ba tey maître euh, Bamba Cissé ma ngay wëy di wëyal daal di xam ne rek ni si Ousmane Sonko est candidat le jour du scrutin à midi tout est terminé parce que l'homme est un phénomène et ce qu'il personne n'y peut rien moom maître Bamba Cissé tey jii bu ñu fexee ba Ousmane Sonko nekk candidat ci euh, élection présidentielle bu 2019 2024 autant pour moi bu mbir jotee dina fekk Ousmane Sonko gagné leen ndax Ousmane Sonko daal benn phénomène la boo xam ni kenn mënul expliquer lan moo tax mu doon phénomène ndax li mu def ci réewum Sénégal depuis bi mu nekkee candidat ba léegi amul benn politicien il bien bien précisé amul benn politicien boo xam ni moom maître Bamba Cissé nee na Ousmane Sonko li fi def amul kenn fi def mu nekk ay kaddu yoo xam ne jokkalante jokkalante boo xam ne dafa daal di euh, dikk ci diggante Ousmane Sonko ak ki nga xam ne moo di agent judiciaire de l'État di Yoro Moussa Moussa Diallo bi nga xam ne lu njiig mooy njaak ndax keroog bi nga xamee ne saba si fay joxewoon na dëgg gi nga xam ne moo di Ousmane Sonko c'est moom moo indi li nga xam moom la jàpp ne récusation la jëmee ko ci juge boobu ndax dafa jàpp ni ci ab tweet na moo indi boobee ndax moom moo récuser le juge saba si fay ba ñu dem ci cour de cour ñu casser verdict boobee cour suprême aussi daal leen di réorienter fi nga xam ne ni moo di euh, tribunal de grande instance de Dakar tey nag euh, la wax naan wuré dem na këng wax mag dañ dem na dañ daal comme ni koy faral di ko waxee Ousmane Sonko euh, tey jii la xool ba xam ndax définitivement il sera il sera sur les listes électorales parce que tribunal de grande instance de Dakar am na compétence su àtte mbir moomu am na compétence saytu ba xam dafay dëggal li nga xam ni mooy décision bi nga xam ni juge Sabassy Faye def li nga xam ni cour def na ko si euh, euh, ñi nga xam ne ñoo nekkoon ay avocats Ousmane Sonko amoon nañ jot ci CEDEAO ni buñ dugalee foofee recours ci la radiation de Ousmane Sonko la dissolution du parti et son emprisonnement cour de justice bu CEDEAO dina jox dëgg ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko waaye loolu yëpp France daal di xëdën ndex la ñu fa yaakaaroon yaakaar dafa daal di tas tey jii nag ñoom avocat Ousmane Sonko amati nañ yaakaar ñoom Seyid Larifou ñoom maître Bamba Cissé maître Ousseynou Fall maître Ndoumbe Wane ñoom itam am nañ yaakaar ni tey jii le droit sera dit mooy li Aminata wax sànq tenu le droit sera dit euh, euh, à la cour d'appel ñu daal di remettre Sonko ci course bi nga xam ni moo jëm ca élection présidentielle bu 2024 Amina ma ñëwaat tuuti ci yeneen information incha allah. Euh, jërëjëf Abdou Khadir ci li nga xamante ni moom nga ñu indil actuellement comme ni ngeen ko gisee noonu ba tey pause ba moom moo am foofee avocat yi nga xamante ni ñoo jot a réagir ñoom la leen Abdou Khadir indiloon ci kaddu yi nga xamante ni moom la fi daal di tënkee di fàttali rek ñi nga xamante ni ñoo toog di ñu seetaan actuellement numéro 42 19 19 ngeen daal di dugg participer ci li nga xamante ni moom moo di émission bi di leen tënkaatal lekk li nga xamante ni moom moo di situation politico judiciaire bu Ousmane Sonko actuellement ah, ci réew mi mbir mi nag daal di yàgg date caatum 2019 ba suñu joonu yàlla tey jii ginnaaw bañ koy euh, toppee wàllum euh, viol ci euh, ki nga xamante ni rek moom moo di Adji Raby Sarr mbir moomee nag daal di def daana daanaka deux ans ci réew mi laata rekk ñuy justice di tranché ba xam Ousmane Sonko moo def am déet ci diggante bi nag Ousmane Sonko yëkkati woon na ay kàddu di wax ni rek kii nii di Mame ñaar dafa daal di lowal lu toll ci 94 euh, milliards de francs CFA yoo xamante ni daal euh, ci euh, réew mi la mbir moomee nag Mame Mbaye Niang tourné di ko toppee justice daal di tranché ba mu am ndam ci kaw ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko di leen yëgal ni rek ginnaaw ba ñu ñi doon wàcc ci kaw tali bi doon jàppale Ousmane Sonko ñeneen ñi di amal ay manifestation violence daal di am ci réew mi nag daanaka mbir moom mi daal di nañuy jël rek xëpp ko ci kawam di ko yëgal ni rek euh, dafay nekk ci acte de euh, terrorisme euh, daanaka chef d'oeuvre diñ koy toppee bari te diis lool.